su ñu teewaay fii li mu waral mooy programme bu mag a mag a mag a mag la ñu am ci suñu biir agence ñu tuddee ko programme pour le renforcement des résiliences des communautés pourquoi parce que gis nañ ne jaww ji dafay tàng gis nañ ne heure bu mu waroon taw dootu ko taw day taw heure bu mu warul taw gis nañ ne rendement amatul boo jiyee sa tool la ngay yaakaar pour am ko doo am lu toll noonu jafe-jafe day fay am ci dund bi dafa jafe day am ci biir kër gi bu jafe-jafe amee borom kër gi jaaxle mënutul joxe dépense mënutul faj doomam mënutul am lu mu lekk lan mooy xew doom yu góor yi mu am ak doom yu jigéen dañuy gaaw a génn école doom yu góor yi dañuy génn uti fu ñu jëm ñi ngi gis ne xale yi ñi ngi dem bitim réew di jaar ci yoon bi di jaar ci ndox mi di rey seen bopp ci biir géej bi loolu nag pour mu dañ ñun ñi nekk ay njiit nekk ay maire nekk ay ministre nekk ay président nekk ay leneen leneen ñoo war a xam ne poste yi ñu yor askan bi moo ñu ko jox bu fi askan bi nekkuloon ñun du ñu nekk bu ñu askan bi dénkee baatam dénk ñu confiance confiance boobu dañoo war a xalaat heure bu nekk nan lañ mën a def ba askan bi jafe-jafe yi mu nekk mu mën ci génn loolu gouvernement du Sénégal def na li ci lu bëree bëri mais dañuy continuer def rek parce que def-def bu baax du du doy parce que nit ñi nu ñuy gën a yokkoo jafe yi day gën a yokku tey panal bi ñu nekk nii fii ak at ci ginnaaw li nga soxla woon ci ndox tey ëpp na tey da nga manqué ndox ndox bi doyul mhm. mais ndox bi yaa ngi ciy dox parce que suuf bi am na ndox mhm. déeg bi nga gis nii mhm. day am ndox fukki weer ak ñaar nag yi jóge jolof ñoo fiy jaar naan ko bu yàggee mu yàqu mais ndox bi tey ñun machine bi dana ko mën a dimbale mu jël ci ndox bi dem arroser toolam tool bi moom moo ko moom mais du moom kese toolu askanu panal yëpp la donc ñun ci loolu la ñuy dox ñu yëkkati machine bi jox ko ko machine bi moom ba mu may njëkk gis daf na ma damoo def maraîchage ma ne ko naa la dimbale moo sol ko kayit mhm. alors fan yi bi may ñëw fii sóoraale moon sax indil ko lii mu mhm. envoyé ma benn vocal video mu ñëw vidéo euh, ndox mi mhm. yónnee ma ko ne maa ngi lay ñaan ndimbal bu ma amee matériel danaa bay soble danaa bay xaal ma xool vidéo bi sama biir oto sama xol yëngatu ma ne naa ko jëndal ñu jëndal ko bagage bi ñu indil ko or bi ngeen di xool bitim réew jamaa bi ngeen di xool bitim réew mu ngi fii parce que bitim réew tubaab yi li tabax seen dëkk tabax seen réew fii la ñu ko jëlee seen kilifa yu mag a mag a mag yu ñu am dañ doon ñëw Afrique fii di jël li ñu am di ko yóbbu nen woon xale yi ne leen kii Amidou Ka ma jël exemple ci kii mënoon na jóge dakaar gars nangu toolam mu ñëw fii jisul dara mun ne day dem tukki bi mu ñëwee waxtaan ma dama ko déedéet da ngay toog danaa la dimbalee nga am maraîchage nga am grillage naa la dimbale nga am looy arrosé dinaa la dimbale nga mën a am ndox tey mu ngi nii tool bi bu ko bayee ñun léegi-léegi jënd nañ ci tool bi valeur ñaata ñaar fukki junni ak ñeent jënd nañ ko tey ci tool bi ñaar fukki junni ak ñeent yooyu tey ñaata saako ceeb la ci mën a am bëri na ñaata litre diwlin la ci mën a am donc blocage bi mooy ñu wan nit ñi ne li ngeen am amul feneen toog leen ngeen exploité ba pare jàppale leen nag parce que ndox yow mënoo jot ndox bi baykat baadoolo mënul gas état moo war a mobiliser ay ressources yu mag a mag a mag a mag a mag a yi nit ñi toog ci biir territoire yi secteur privé national bi ak secteur privé bi nga xam mooy jóge bitim réew ñu xëcc leen indi leen ci biir territoire yi parce que ñun rek en tant que maire mënuñ noo nos territoires amuñu moyens yi budget yi ñu am doyul nous devons tirer le secteur privé national secteur privé inter indi leen fii ñu investir message bu may lancer la ci par rapport ak sama collègue maire yi sama collègue président conseil départementaux yi ñu bàyyi xel askan bi nekk si ñu ginnaaw effort yu mel nii bu ko ñu ñu bëri defee rek yàlla mën nañu dimbale jafe-jafe yi ñu nekk ñu mën ci génn pour ñu génn ci nag neen joxante suñu doole boo nekkee benn maire yow rek rek amoo doole yow maire bi amoo doole kii amul doole neen boolante suñu doole bu ñu boolante suñu doole yaakaar naa ne dinañ mën a am jàmm dinañ mën a am salaam